des na ko jéggal bàkkaaram yépp te des na digal ñaari malaaka ñuy far ay ñawteefam di ko bindal ay yiw ba bis ba di dellusi ca at ma ca tegu te bu faatoo ci diggante bi des na ko bindal tuyaabay ku dee ci jihaat te dana dékkiwaale ak leer te buy jéggi siraat dafay mel ni ak melax mbokk yi ku ci bëgg yeneeni ni leeral dangay dem ci page 149 ci téere bu ñuy wax xurratu ayni bu sëriñ Suhaybu Mbàkke yaa xayra dayfin ataa bil